السلام عليكم ورحمه الله مبوك انتني شين في بلتي في نينا لين بو باخ جيخ لين دي ام بيك تيساس ني دفال لين فيديو بور ني خامتو بي شين ما لين واخ ويلكم بيان فوني ابوني لين كليك لين سكول بوم غاني فيديو بن دوغ مان كو ستامبول ام فاتي تي فيديو سي تري امبورطون بوك انتني تي ني نيو واخ سي ماني اميشن بي ني واخ غراند غيل كانال بي سبور افريك Euh, donc xam naa ne am nañu ko sa am nañu xamante ne xëy na xamuñu luñ ci wax parce que en français la te bëgg tey na dama leen di andil Pierre Fanfan ancien défenseur capitaine bu Paris Saint-Germain li mu wax si question bi la bu fekkee da ngeen soxla yeneen intervention yi parce que ñoom ñoom euh, quatre lañ ci plateau bi si sama me trompe donc ñeneen ñi aussi bu fekkee da ngeen soxla lan la ñu wax si Sadio Mané par rapport ak question bi lan moo tax Sadio Mané ki xanaa Sadio Mané kontaanatul Liverpool loolu mooy question bi la tax ñu wax loolu nag mooy li muy dugal ay bii te du célébrer maanaam du yuuxu du def dara day simple alors que bu ñëwee fii Sénégal lay yuuxu dëpp xam nga dem gis ngeen li euh, biñu jàmmaale ba barrage coupe du monde contre Égypte plus sagement fu nekk la daw kontaan na yuuxu na euh, alors que euh, Liverpool ça fait un bon moment léegi nii dugal na Ligue des champions yàggul on parle de Ligue des champions xam nga quart de finale nga dugal célébrer nga ñëw match bi xamante ne Angleterre gépp moom la doon xaar premier bi deuxième bi xam benn point la match bi def 2-1 yow nga dugal bi égalisateur bi bon nga kot say say say kii moo tax ñu posé question ñu ne ko yow qu'est-ce qui explique ça quoi euh, Pierre Fanfan nag moom wax na si xalaatam nee na affaire bi moom euh, Sadio Mané day jàllale message neen na bu fekkoon Sadio Mané nii la masa mel dañ naan garaawul quoi nii la masa mel comportement mais bu demee mu meloon neneen maanaam avant da doon yuuxu jéeg saa rek yuuxatul rek y a quelque chose est que envoyé ay benn message ay dirigeant am par rapport ak li ñu prolongé euh, kii di Mohamed Salah prolongé ko est ce que tamit affaire li mu nekk liir na Salah am na ñu koy wax loolu soof ko maanaam bu ñu ne liir naa mooy comme Benzema li mu daan defal Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo mooy nekk si lumière bi est ce que tamit loolu soof ko mooy ak lu ci mënti am nee football émotion moo tax ñu wax muy ñi nekk si biti muy ñi nekk yow mii nekk a jox ay émotion yu xam def lépp quoi mais Sadio Mané bu defee lii bu ñëwee rek jéegi saay mel nii rek euh, du hasard quoi ñëwul rek mu nekk un bon jour mu ne noonu du ma célébré parce que nee na Sadio Mané sax bu dugalee bal bi day mel ni ku bëgg dem si supporter sax mën ko xoo arrêté bu bëgg dem bu côté joueur yi daal si lay pare quoi moom si li mu jàpp yaa quelque chose et que dafa nekk di envoyé euh, benn message ay dirigeants am parce que li Thierry Henry daan na def xaw genre yi mais Thierry Henry c'était beneen rôle quoi beneen rôle waane caractère fulle man maa fi genre yooyu quoi bu daan dugal day jégi saa ñëw taxaw ñaangal def yenn ay position yu xamante du célébrer noonu ne voilà xam na àdduna quoi parce que ñun ñëpp célébration yu yu ceeri en dañ daan dañ daan carrément parce que yi fi star dëgg la koy def quoi yi classe la koy def mais mais nii nii nii Père Fa Fafan moom Euh, dafa gis ne benn benn message la bu xamante ne euh, Sadio Mané da koy da koy envoyé ay dirigeants am xam nga donc euh, moom loolu la ci xalaat mbokk yi ne bu fekkee da ngeen soxla yeneen intervenant yi parce que am na ñeneen ñu ci wax ah, xam nga donc Camerounais boobu moom fa wax na si Malien bi ñuy wax Kanté noonu ancien joueur xam nga tamit moom moom mu ngi ci plateau bi wax na si bu fekkee da ngeen soxla ay intervention pour ma def ko en wolof pourquoi pas ma def ko en vidéo léegi nii ci kanam donc li mu nekkoon vidéo bi maa leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Football TV. asalaamaaleykum.